aca ah, o fog mbind Yalane TV i njega meen a Pape Marone nguday ne na arène Adrien Senghor i yoona fo Diaks Production xaye ref le 12 novembre 2023 Katagan Pire ka 1 million o mbak na Momo Ngom na kima ka mbayang lum Diaks leye ku ta jeg na mene soxla e ten dara Babou Ngom a yam umbaye nune babu ngom cirka kangu patir manam kadawat, adan doga tak no sagu um do pa bungom jege kavier na no cerer ne nda jak sudah maga ale kuda jigna mene ya kana jogo ten a aya may de yam teno cirka kangu patir adan doga tak nino sagu um injaga mena poi fai a ce jega meen a koy fay a ce jega meen a koy fay Amata Alang Amata Alang ar xewu i cunga arbitre ar xewu a sawa jega